live yi may yi may faral di def wala sax fa may liggéeyee ma fay toog di wax man damay bëgg di wax loo xam ne nii damay wàccoo ak sama aqulaay taala su ma juumee dem ba xam ne tey jii damaa juum dinaa am grandeur ñëw toog daan ah tey kat damaa juum te yaakaar naa ne boobu ak léegi mi ngi bëgg a yàgg parce que bientôt cinq ans la ñuy wax bientôt cinq ans ñu nekk ci télé di liggéey daanaka boobu ba tey jii yàlla mi ngi ñuy suturaal yàlla mi ngi ñuy suturaal à chaque fois dañuy dégg rek. waaw day saxaar mais du mësul tàkk dañuy dégg rek wax nga nàngam wax nga sàngam diw mere na la ci mais li may wax à chaque fois mooy dañuy wax naan boo dee wax ñu naan ah ragalal bul di wax la moo tax ngay wax dañ lay jàpp dañ lay tëj dañ lay lii dañ lay laa donc yaakaar naa ne ah doomu aadama sunu borom rek la war a ragal man ci li ma yaakaar yàlla sunu borom rek la ñu war a ragal donc waruñu fee nekk di ragal benn doomu aadama waaw donc yàlla lañu war a ragal te li ñuy wax sunu àq taalaa la ñu koy waxee su fekkonte ne dañuy gis safaan tamit noonee lañu koy waxee ci fu mu mënti doon côté bu mu mënti doon parce que Sénégal lañ fi nekkal askanu Sénégal lañ fi nekkal ñun yàlla moo def ñu toog war a wax mais à chaque fois ma koy waxee yéen a ñu gën a xam li ñuy wax donc amuñu euh, parti pris ci kenn amul kenn koo xam ne ni dañ laa jox bopp pour di la waxal déedéet. yàlla moo ñu ko nattoo bu ñu toogee lu xam lu am dañ ci def njàngat njàngat boobu la ñuy ñëw ngir partager ko ak yéen am na ci loo xam ne xam ngeen ko te xaw ma ko des dama koy gis ci message yi wala ci li nga xam ne ni moom moo di ci commentaire yi donc loolu daf ñuy gën a yokk waaye itam am na loo xam ne nii man xëy na ci sama ay gëstook yeneen comme ci laay liggéey mën naa koo wax fekk yéen xamoo leen ko woon donc da ngeen koy boole ak li nga xam ne nii moom ngeen xam mu nekk benn daal comme ni ñu ko xamee à chaque fois dama koy wax euh, su li nga xam ne ni moom moo di information comme ni ñu koy xamee amee dañu daal di am yittey génn ngir partager ak yéen li nga xam ne ni tey jii moom mooy moom mooy euh, li am ci mbir mi waaye itam def ci analyse bu ñu ñëwee nag wax analyse mooy sunu xel la ñuy demee waaye itam sunu li nga xam ne ni moom mooy sunu li ñu xam ci affaire bi la ñuy demee à chaque fois man nag du ma bëgg mu ëpp du ma bëgg mu yées du bëgg mu yées boo ko déggee mooy damay bëgg a joxe corps et âme pour yéen ñi may déglu ngeen xam lan laay wax ak fan laa koy waxee waaye itam du ma bëgg a ëppal parce que du ma bëgg lu ñëw rek ma ëppal ci ëppal boo xam ne nii xëy na duma xam sax la may wax. donc à chaque fois damay bëgg su dara amee rek dinaa def sama kéemtulaay kàttan gëstu ci côté bu ne ba nga xam ne nii dinaa ci am lenn loo xam ne moom laay mën a partager ak yéen ñi nga xam ne nii yéen a ñuy faral di déglu waaye itam duñu seetaan ci live yi ak yeneen. ñu ñëw partagé ko donc tey dañuy gaawantu rek ci lii nga xam ne ni moom la ñu fas yéene def ndax ku ne xam ne ne actualité bi moom instant bi euh, euh, ku ci ku ko joxoñul di nga ci wax ndaxte ku ne xam na ne instant bii nii actualité am na boo xam ne war nañ ci mën a waxtaan bu baax a baax donte ne lépp lépp mënuñu ko woon a xaar du question yàkkamti mais lépp lépp mënuñu ko woon xaar ndax ku ne xam na ne dossier bi ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr ni ki tey jii depuis sa matin ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ak kii di Ndeye Khady Ndiaye borom Sweet Beauty jaratul ñu ci dellu si ndax euh, yaakaar naa ne information war na àdduna kër war nga këpp ba biti réew sax fala tey jii fa la gën a wulee ñaay lañ ca xam sax ñun xamuñu ko donc yaakaar naa ne du lu ñuy revenir donc gis nañu li nga xam ne moom moo ci yees mooy Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xam ne moom moo di euh, Adji Sarr ña ngay def seenu face à face maanaam seenu janoo ak ki nga xam ne nii moom moo di euh, procureur ngir daal di indi ay leeral gindilante ci li nga xam ne nii moom moo leen lëkkale ci boobu boobule dossier ku ci nekk ànd ak sa avocat sa avocat fekke li nga xam ne moom moo di boobu boobu jàkkaarloo. lu ni mel après dinañ ci dinañ ci dëkk dikk ci li nga xam ne ni ñun moom lañ ci def rek ci euh, li nga xam ne ni moom mooy sunuk analyse waaye bala ñuy ñëw ci loolu dañuy ñëw ci leneen loo xam ne soxal na sénégalais yi bu baax a baax mu soxal nag sénégalais yi bu baax a baax a baax. parce que tey ci dossier boobu lañuy ñuy desandi ndax dossier boobu euh, ba tey jii ni ñu koy waxee rek bari na ay dégâts yoo xam ne dossier bi indi na ko ci Sénégal euh, bu ñu bu ñu bu ñu ñaanalee ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan di suñu ay martyr di ay doomu Sénégal yoo xam ne seenug dem kenn souhaité ko woon di leen ñaanal ci weeru koor gi comme saa su ni ñu koy defee rek di leen ñaanal aljanay firdaws yi yàlla boole leen ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy gisee ak Seydina Muhammad waaye itam daal di leen di nag tatagal ci fi nga xam ne ni moom mooy gën aljana yi gën kawe incha allahu rabbi sunu martyr yooyee nga xam ne du jóg ci di leen jooy rawatina nag boo fekkee ni dafa am jóg ngir fàttali ñu ñooñee nga xam ne ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci mois de mars bi nga xam ne nii ci atum 2021 la ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr ak dossier bi nga xam ne nii moom lañ cay wax ak la ca tukkee lépp ba tax na tam boobule dossier am na leneen lu mu laal leneen lu mu indi mu di euh, ki nga xam ne moom moo di capitaine Touré euh, laa fa passé euh, junjoon naa ko fii moom ñu dàq ko ci fi nga xam ne nii moom moo di ci gendarmerie nationale ndaxte ku ne xam ne ne capitaine la fa woon. tax na aussi ba dossier bi amee kii di Adji Sarr ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon jaraatul ma ciy delsi ñoom daal di na ñuy dem fa nga xam ne nii foofee la capitaine Touré nekkoon ca gendarmerie na foofee. moom capitaine Touré nag mu daal di defoon ab enquête ku ne xam na ne enquête boobu la ca tukkee ak la taxoon ñu ñu dàq ko euh, ci euh, gendarmerie nationale waaye itam la ca tukkee lépp euh, dootuñu leen ko nettali ndax ku ne xam na ana lan moo ca ca tukkee ba tax na ci loolu rek buñ ci taxawee déjà man dama ciy taxaw tuuti rek ci dàqu ki nga xam ne moom mooy capitaine Touré moomu Euh, parce que yaakaar naa ne wax nañ ci waxati waaye wax waxaat du bari wax waaye itam gën a leeral la gën a tam indi ay gindeeku ci yenn yi euh, bu ñu dee xool euh, capitaine Touré ci bi ko bi ñu ko bi ko nguur gi dàqee gis nañu tole bi nga xam ne def na ko rawatina ci réseaux sociaux yi ku ci mel ni man mii nga xam ne damay yëngu lu bari ci réseaux sociaux di ci ne à fois di ut li nga xam ne moom moo di information ngir fa may liggéeyee gisoon naa boobu tole bi mu amoon bi mu defoon ba tax na doomu Sénégal ñu baree baree bari daal di jógoon ngir ñaawlu affaire boobu waaye itam daal di yërëm ki nga xam ne moom moo di capitaine Touré ndax ku ne xam na ne nag askanu Sénégal moom yërmande ci ñoom la fekk baax comme ni ma koy waxee kuy ut ku yër ku yë ku ci yërmande rek ak koo xam ne nii sot dañ dañ lay sotal dëgg rek na nga ñëw ci doomu Sénégal nga def ko naka su dul noonu moo xam fu mënti nekk da ngay gis xol yi dinañ jóg waaye itam li nga xam ne nii moom mooy euh, dinañ feeñal seenuk mbëggeel seenuk cofeel euh, ci ki nga xam ne ni moom la ñu euh, teg boobule métit mu nekk nag loo xam ne nii warul a tax benn yoon moom capitaine Touré ñu daal di koy raje maanaam ñu dàq ko ci euh, fonction publique nekkoon na loo xam ne nii lu ñëpp ñaawlu la ba tey jii ñu toog di ko ñaawlu parce que li ñu ko teg dafa jaaduwul benn yoon moom capitaine Touré euh, na mu xalaatee ne noonee la defee liggéeyam ci enquête boobee loolu waral tey jii ñu indil ko lalal ko ndëgg sërëx ba tey jii tax ñu seppi ko teg ko ne ba mënatul sax am liggéey ci Sénégal te pourtant muy doomu Sénégal jànge Sénégal amee fi ay diplôme waaye itam nekk koo xam ne nii dangaa teewal sa réew ci kaw wane dëgg ak fulla dëgg ak fulla boobu ñu ne la carrément doo ko fi waxee doo ko fi wanee dar lay jaay doole wañ sa loxo dar lay sànni ne eh, comme koo xam ne nii tey jii doomu bàyyi ma nga wala leneen te muy nit njaay bokk fa mu war a bokk waaye itam jàng ca fa ba mu waree jàng eh, ku ko xam tamit ci ñu ko xam ñëpp koo la seedeel danaan la nit ku yiw la nit ku nit ku bari baatin la te it nit koo xam ne ni la ku respecté boppam la ku respecté doomu aadama tey ci doxin ak nekkin da nga koy xool ci moom déjà boo ko xoolee da nga koy gis xam ne kii nit ku macha allah la nit koo xam ne nii la daal euh, ku teey la te it koo xam ne nii la ku am gëdd ci boppam la bari ful la ci loolu moom capitaine Touré ñu dàq ko ci foofu boobu ba léegi ku ne gis na ay information di tukkee ci moom à chaque fois di tukkee ci moom mu nekk nag lu naqari woon doomu aadama yi ba nit di ko jooytu fu ne ndax ku nekk bëggul ñu teg ko sa mbokk wala sax ëllëg si biir yow ñu teg la ko te lu mën a nekk la nag kenn ku ne toog ci sa ruq yaakaar ne li capitaine li muy daj nii moom rek la war a moom rek la war a dal ëllëg ki si biir mën naa daalu ci sa kaw te su boobaa doo ko bëgg a teggeeku moo tax li may wax à chaque fois benn lam du yëngatu benn lam du yëngatu il faut ñit booloo doon benn te loolu gis naa ko ci askanu Sénégal ci li nga xam ne ni moom moo dal euh, capitaine Touré te li ko waral du lenn lu dul dafa defoon enquête boo xam ne nii dafa favorable ci ki nga xam ne ni moom moo di Ousmane Sonko ji ki nga xam ne ni moom mooy euh, opposant bu radical ci kanamu nguur gi nga xam ne ñoom ñoo fi toog ba tax na moom capitaine Touré loolu tax na ñu daal di koy néewal doole ci nu ñu ko jàngatee ci ni ñu ko xalaatee. mais tam dafa amoon foo xam ne fa la waroon a yem mooy bu ñu ko dàqee ci fonction euh, publique bi dañu ko waroon a bàyyi mu nekkoon ci li nga xam ne moom moo di ci côté privé bi ndax ku ne xam ne IAM gi nga xam ne ñoom ñoo ko recruter recruter woon ni ki fan yii ba mu commencé woon fa jàng jàngale euh, nekk ay ndongo daara yoo xam ne ku ne gis na photo yi jotoon a génn moom mu publier ko ak euh, li nga xam ne ni moom la wane ci njàmbaarteem ci fullaam waaye itam ci bëgg réewam. ci bëgg euh, li nga xam ne moom moo di liggéey yi nga xam ne nii moom la dal yees euh, te avant loolu dafa daal di nag tegoon lengem yépp daal di daw jàngiwaat yokkaat xam-xamam bu baax a baax daal di ñëwaat ci fi nga xam ne nii moom moo di ci biir euh, ci biir Sénégal utaat fi liggéey ndax ku ne xam ne ne mënoon naa génn réew mi mënoon naa am yeneen moyen wala sax ñu proposé woon ko leneen ak leneen loo xam ne day génn réew mi dem yoonam waaye defu ko dafa xaar doomu Sénégal comme moom bu taxawal yëfam daal di koy woolu ci privé bi ngir mu ñëw xam-xamam ba nga xam ne ni yor na ko mu mën koo becci ci ñi nga xam ne ni moom mooy da ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara jooju te iyaayam nag di daara ju kawe ku fa génnee yor sa diplôme boo xam ne ni macha allah la moom ñu jëloon ko fa lu ni mel tax tam ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ko raje woon e, ca njëkk e, ca bu njëkk ba daal di wanewaat seen bopp wanewaat seen bopp nag ci mbir mi ndax ba fa capitaine Touré commencé lundi ak léegi yaakaar naa ne bariwut euh, matagul sax une semaine moom capitaine Touré ba mu ca jógee ñu bari ci ñu ko sopp ñu ko bëgg ci dëgg googu daal di koy nag rafetlu waaye itam encouragé ko ñu bari yéene ko li nga xam ne ni tey jii moom moo am noonu muy jàngale bi mu doon jàngale ca IAM. ñu gisaat ñeneen ci ay waay politique waaye itam ñeneen ci ñoo xam ne dañoo waroo fi ñu bokk maanaam bokkuñu euh, camp bi ñuy doxee ñoom ñu génnoon di wane ak naqarlu ak naqarlu lañ doon wane ci ne capitaine Touré kenn waru ko woon a bàyyi muy liggéeyaat ci biir Sénégal ndaxte fonction publique lañ ko rajee mais est-ce que dañu ko war a raje ci fonction publique tax ba ki nga xam ne nii moom mooy capitaine Touré war ta mën a liggéeyaat ci Sénégal pourtant budul. Euh, ci gendarmerie nationale ak feneen ak feneen man ci limaa jàppoon moom mooy capitaine Touré man je ma dama doon wax à chaque fois ne war nañ ko mën a jël ci leneen ak leneen parce que xam-xam bi mu am ku tooga wala ku ko xam dëgg xam nga ne boroom xam-xam la te jàng na ba mu waree jàng ku ñu war a teg ci kanam la donc warul dem ci ginnaaw donc kooku dañ ko waroon a sax wut feneen fu ñu ko bokk wala sax ñu jox ko leneen ak leneen comme bëgguñu euh, fi mu doon exercer mu nekk fa ndax la mu doon def am na ñu mu arrangé wul. ñu gisoon ki nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté euh, daal di génn daal di def poste boobee mu nekk nag lu bari loo xam ne ni sénégalais yi ñaawlu nañ ko ci wax jooju mu wax. moom mi nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté ba gis nañu euh, ni ñu ko waxaatee ay mbiram ku ci nekk sullil ko yeneen ak yeneen yoo xam ne nii jotoon na cee nekk wala sax mu jotoon koo dal ñu bari bari bari bari di wax ne Moustapha Diakhaté doo xam ne nii ku war a wax la ñu bari daan wax naan moom à chaque fois bu waxee rek def na bourde boo xam ne nii waru ko waru ko def dem nañu sax ba am ñuy wax naan euh, moom à chaque fois bu génnee rek day jël euh, président Macky sàll mel ni ku jël xeer dóor ko ci kawam parce que da koy gën a jaxase ak askanu Sénégal dem na sax ba nit naan am ñu naan parce que gis nañ ko ci réseau sociaux yi bu baree bari am ñu naan moom mi nga xam ne moom moo di Moustapha Diakhaté euh, ci ay jamono moom moo doon wax naan nañu dàqalu Ousmane Sonko ci kaw ba mu moom tamit bañ ko defee nii ñu def ki nga xam ne nii moom moo di euh, capitaine Touré ba Moustapha Diakhaté moom ku ne xam na lim ci wax te lim ci wax macha allah kenn rafetlu ko du loo xam ne nii lu ñu rafetlu la en tant que sénégalais waxuma sa ay en tant que journaliste wala anal en tant que sénégalais kenn rafetlu ko parce que kenn du yéene sa moroom waxuma la ak sa moroomu doomu aadama nga koy yéene njàqare wala tam nga koy yéene ak coxor ba nga xam ne ni moom da koy sentir ca fa mu toog après ñu jël ko ci IAM lan la ko wàññi. lan la wàññi keneen ak keneen ku wax ni waruñu koo jël ana lan la leen wàññi lu tax ñu bëgg koo xañ bonheuram boobu moom en tant que père de famille en tant que chef de famille en tant que responsable ñu waroon koo bàyyi mu exercer li nga xam ne moom moo di métier ba mu bëgg te it ci wàllum droit la doon jàngale ci fi nga xam ne moom moo di ca IAM di droit boobu moom la jàng ci la am ay diplôme te macha allah teewal na ci teewal na ci askanam bu baax a baax ndax ba dossier bi demee ci loxoom moom la mu gisoon jàpp ko mooy ak li ko liggéeyam may mooy enquête boobee waaye kat dara amu ca ndax dégg nañu fi ma capitaine Touré waxee ne Adji Sarr ba mu ñëwee ci moom ba mu ko entendre ba pare dane ko ndax duma ci am problème boobu man mii deful droit su doon man la tamit nii capitaine Touré defee noonee laay defee parce que di nga demander à que ak attitude nit ki danga nga koy xam boo toogee nit ki di nga xam kii la mu def ak la mu def waaye tam la mu sañ ak la mu sañul. donc foofu noonu rek déjà njàmbarte la fa wane waaye tam bëgg liggéeyam bëgg askanu Sénégal te ba mu ko defee moom wax na ko nee na jógul rek. ne Adji Sarr këtam këtameeku déedéet da ko doon woo euh, pour indi ko à la raison pour wax ko ne carrément kat lii ngay def est-ce que doo ci retiré ak est-ce que xam nga ki nga jiiñ nangam ak sàngam ak sangam donc kooku fii dossier bi egsi du moom moo ko fi eggale fii dossier bi ñëw du moom capitaine Touré moom moo ko fi eggale te bu ñu xooloon ci xoolam xëy na bëgguloon dossier bi egsi fii yépp amaana dina nekk loo xam ne nii askanu Sénégal lu ñuy passé la mu daal di jàll ci loolu loolu moo ko jural moom ca ba muy jàng Macky Sall ba wàcc ba ci suuf ba man nii kenn fayalu ko ci njàngam kenn defalu ko ci lenn loo xam ne nii tey jii euh, mën nga ko cee jàppale xanaa mu jàngee ci école publique yi euh, comme sénégalais yëpp ni ñu ci amee droit droit boobu mu am ko ci ba tey jii mu daal di ci euh, génn ci jàmm ak salaam ba nekk li nga xam ne nii tey jii ci lay liggéey ñu daal di ko koy xëy xañ ci loolu nag moom. askanu Sénégal dinaa ñëw ci taxawaay bi nga xam ne ni ñu ngi koy taxaw waaye balaa loolu dañuy taxaw ci ki nga xam ne ni moom moo ko raje di euh, président Macky Sall moom mi nga xam ne moom mooy père de la nation comme ni ma ko tàmm di woowee njiital réew mi mi nga xam ne tey jii ci moom la ñuy sukkandiku pour euh, xam ne dëkk bi neex na wala naqari na parce que kat fa mu toog tey jii bu bëggoon coor arrêté léegi bañ a wax day arrêté léegi leneen ak leneen lu mu sañoon ci dëkk bi da koy da koy am parce que moom la ñu teg ci chaise bi te suñu ay carte lañ ko fa tegee waaye itam dañu ko jox suñu alal jox ko suñu lépp ne ko rek jébbal nañ la lépp nga nga nga yërëm ñu daal di ñuy jàppale ci ñu mu waree moom kenn du wax euh, li nga xam ne moom mooy dàqu capitaine Touré doo ko doo ko ci tudd man damay ñëw ci euh, président Macky Sall ak euh, jamono ji nga xam ne nii ma nga assemblée nationale te kii nekkoon njiitu réew mi ci jamono jooju nekkoon papaam di euh, président Abdoulaye waddu ca jamono jooju dàqoon ko ba pare ne ko jox ma li ma la delloo ñu li ñu la joxoon lépp moom président Macky Sall ba ko loolu dalee yaakaar naa ne askanu Sénégal ci jamono jooju jógoon nañu moom tamit métti lu comme nii. métti lu comme nii jógoon nañu ñoom tamit daal di wane seen naqar ci li nga xam ne nii moom mooy dàqu Macky Sall boobu bay man yaakaar naa sax man ci sama ay xalaat ne président Macky Sall li ko indi ci chaise bi mu toog tey jii bokk na ci lu baree bari bari mooy li ñu ko tegoon ci nguuru euh, président euh, Wade bokk na ci li ñu ko rajo woon bokk na ci leneen ak leneen loo xam ne ni sekkoon na ko Abdoulaye ak euh, président Wade ak ki nga xam ne moom moo di doomam di Karim Wade ba ñu bari bari bari jóge woon ci merle ko ci merle boobee nga xam ne merle woon nañu ko ko tamit tax na tey jii sénégalais yi ba ñu demee xëy na nee nañu li nga xam ne moom moo ko teg ci euh, fi nga xam ne moom mooy chaise bi mu toog ci euh, présidence de la république xëy na fakkastalu moo ko fa indi waaye ba mu fa ba ñu fakkastaloo tam ba dal ci moom yaakaar naa ne bari na ci ay sénégalais yoo xam ne ca deuxième tour ba ñoom ñoo jël seeni ay carte dam daal di koy voté ci fierté euh, lu ni mel nag tax tey ji ba président Macky Sall war a fàttaliku loolu moom bu ñu dee wax dàqaate ak yeneen yu ni mel ak raje ci woon a bokk ndax am na lum ci ñam am na lu mu ñam ci raje nit am na lu mu ñam ci dàq nit ci fon ci li nga xam ne moom moo di fonction publique waaye itam ci ñu la dénkoon ñu nangu ko donc euh, fi may waxee mooy bari na lu mu am expérience ci côté boobu waru ko woon teg nit mais déggaat nañ fii euh, fan yi paase rek ku ci mel ni Abdourahmane Diouf euh, bu awale mu daal di jógoon daal di xamle ne moom bañ koy dàq ci jamono jooju ci poste direction bi ñu ko joxoon maanaam mu nekk directeur ci benn benn benn structure ba ko président Macky Sall dàqee ñu jox ko lettre boo xam ne nii wala sax ñu woo ko dàqalu ko nee na boobu dafa jàpp ne. Eh, kii di njiital réew mi dafa ko bëggoon wala sax ñi ko dàqalu dañu ko bëggoon a toroxal dañu ko bëggoon a teg mitit waaye itam dañu ko bëggoon a eh, salfaañe li nga xam ne moom moo di àq ak fam far yàlla moom ba mu ca jógee mu am dëgërlaay mu am dëgërlaay goo xam ne ni nag nee na moo tax tey jii ñi nga xam ne xalaat nañu ne wala sax jàpp nañu ne eh, moom dañ ko bëggoon a toroxal tey jii ñoom ñoo mujjee sëgg rus ci kanamam loolee mu ko daloon moo dal ki nga xam ne moom moo di capitaine Touré waaye itam da koo dal dalaat ko muy lu metti nag ndax ba ñu ko rajee fonction publique mënoon nañu ko bàyyi ci public bi ci privé bi muy def li nga xam ne moom moo di liggéeyam ca na mu ko bëggee waaye tam na mu ko sentiree na ko ko njàngam mayee mais gis nga même pas une semaine IAM jël ko muy am fierté photo wu ak loolu partage wu ak doomu Sénégal yi nga xam ne ñu ko doon jàppale ci xol ak jëm ak lépp ñoom ñu daal di koy euh, dàqaat ci côté boobu parce que Euh, du ñu dàq ne li tax li li favorable ci enquête boobu mu defoon ci Ousmane Sonko taxoon nañu dàq ko fële waaye itam indiwaat na dàqam fii donte ne am na ñuy wax naan euh, kii di euh, ki nga xam ne nii moom moo di Moustapha yi mi moom IAM ci Yewwi Askan Wi la bokk nit ñi di wax des choses comme ça mais ñu fàttali ko ne bu fekkente ne Moustapha yi école boobee moom moo ko taxawal ay ndongoy ndongo ne ci yaakaar ko yaakaar boobule diplôme jàng ba heure bii ñu fas yéenee xaar ay examen ñu def ko moom Moustapha Guirassy yi mu xam doole bi nga xam ne nii moom la ñi nga xam ne ñoom ñoo di état am mu daal di jël ndongo yooyu bëgg leen sacrifier ndax kan benn capitaine Touré loolu yaakaar naa ngorom du ko ko may te bu fekkente ne dangaa ñëw jël capitaine Touré pour dimbali ko waaye itam dimbali askanu Sénégal ki ko doon dimbali ngir jox ko poste jox ko liggéeyukaay moom mu toog fa di fa liggéey ngir suturaal boppam suturaal njabootam. nga xëy un bon jour ñii di état dal ci sa kaw yow en tant que école te nga xam ne ay père de famille père de famille ñu ci boobu école waaye itam ay ndongo yoo xam ne ñu ngi toog di xaar examen pour mën a jàll ci yeneen classe supérieure wala sax ñu mën a pare ci seen njàng. loolu yaakaar naa ne Moustapha Guirassy du sacrifier ñooñu ndaxte. dañoo jël capitaine Touré ne du jàngale ci boobu boobule école déedéet nañu utiliser waat sunu ay xel ñiy wax ne capitaine Touré Moustapha Guirassy dafa bokk ci ñu koy xeex gis naa ñu koy bind ak di ko lii déedéet yéen seen xam-xam kon soriwul wala seeni xalaat soriwul. bu fekkente ne da ngeen a bëgg capi ki nga xam ne moom moo di Moustapha Guirassy daal di tayle école boobu ndax lan dañoo dàqulu dafa yor dafa jël capitaine Touré ci école bi ñu bëgg koo dàqulu déedéet gën bu nit. te mën nañoo euh, noywal doole capitaine Touré kenn la mais suñu jëloon ñi nga xam ne ñoom ñoo di école lëmm ay ndongo nekk fa jàng ba heure bi ñu sacrifier leen wala tam ay père de famille yu fa nekkoon defuñu waxuñu ñu sacrifier leen loolu yaakaar naa day day gauche ba tax na atte yàlla gën bu nit yàlla suñu borom mi atte xëy na tey jii mi ngi wane mi ngi wane à chaque fois ba tax na ñenn ci askanu Sénégal ñi nga xam ne sax jàpp naa ne ñoo gën a takku ci askanu Sénégal jël nañu combat bi en téye nañ ko ci fulla ak dëgg ndaxte tam maa ngi fi gis léegi nii ñu naan cagnotte bi nga xam ne moom la ñu ubbil capitaine Touré daal di nay mat sëkk 20 millions yi ñu démarré woon ñi nga xam ne demaa def nañ ko nag ñoom ñooñee daal di koy def ak kër daal koy def nag ak xol bu sell xol bu laab boo xam ne nii moom la ñu yéene kii di capitaine Touré ngir defal ko ko te am na ñu bari ñu ñuy wax naan. Euh, ci euh, bu fekkente ne ñoom dañu ko def jàppale seen leader moo ko moo tax ak yeneen yu ni mel mais tam bu leen fàtte ne askanu Sénégal euh, xeex bu jot ñu xeex ko bu leen fàtte loolu askanu Sénégal xeex bu jot képp ku ñu xam ne teg nañ la métit ak coono askanu Sénégal da ngay gis ne bu ñu jooyul ba ñëpp dégg leen daldi nañuy wax ba ñëpp dégg leen waaye itam dara nañ koy métitlu ba ñëpp dégg leen te à chaque fois ñoom ca nañu koy fajee du ànd ak coow du ànd ak i wax xanaa rek Euh, bi coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko jógee ñu bëgg a tëj ki nga xam ne moom moo di Ousmane sonkoo ndax euh, ci garde à vue ak yeneen ñu gis askan bi jóg parce que forcé nañ leen boobu ñu forcé ñoom it seen bopp ba leneen ak leneen tukkee ca mais nii ñu def ci kaño bi nga xam ne dañ koy ibbil kii di euh, capitaine Touré yaakaar naa ne yeneen force la yoo xam ne du yem fii du yem fii ci askanu Sénégal gis nañu barki démb Euh, métit bi nga xam ne tegoon nañu ko euh, askan bi yeewoo ca Louga rawatina askan bi yeewoo ci Sénégal àdduna wërngal këpp euh, ci li ñu tegoon ci ki nga xam ne nii moom moo di soxna su génn àdduna di astu soxna ni ki barki démb ba tey moom ñu koy ñaanal moom ak doomam jooju mu yóbbaale rek yàlla daal di leen di beral kër ca àjjanaay firdawsi yi daal di koy tatagal te te ko ci kanamu Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa ba tax na moom gis nañu askanu Sénégal comme ni ma koy waxee rek seen dëggu waaye tam ak seen li nga xam ne nii moom moo di seen euh, njàmbarte ñu daal di wane njàmbarte bu baree baree bari ci dëggalal capitaine Touré waaye tam wan ko ne ah am na ndey te askanu Sénégal ñooy ndeyam am na baay askanu Sénégal mooy baayam capitaine Touré ay rakk ki mag. ak ki jarbaat ak i doom la am moo xam fu doomu Sénégal nekk dégg naa sax am na ñoo xam ne bokkuñu ci askanu Sénégal waaye ñoom yile combat da leen di yitteel ba ñoom tam def nañ ci seen dërëm ak seen ñaar dërëm donc loolu la ñuy wax ne loolu mooy njàmbarte loolu mooy fulla te loolu mooy dëgg parce que tamit lu ñu mënti wax mooy bu ñu jógee ci di wax rek mooy li ñu ko teg dafa jaaduwul bu ñu waxtaanee rek mooy li ñu teg ki nga xam ne moom mooy capitaine Touré dadul lu jaaru capitaine Touré mënoon naa dund ba dee du dund lii mu dund waaye yàlla dafa def ne nattoo ko dossier bi nga xam ne ni moom moo lëkkale Adji Sarr ak Ousmane Sonko ba Adji Sarr jógee ca capitaine ture la jubali moom ak ñoñam dem jébbal ko ay waxam ci li nga xam ne nii moom lee na loolee lañ ko def capitaine Touré jóge ci bëgg a def fulla ak dëgg parce que tam boobu ba tey jii ah ñun de daan ay complot dafa am ak yeneen ak yeneen mais ni dossier bi de demee boobu ba tey am na ci lu bari loo xam ne capitaine Touré da koo yey ñi nga xam ne ñoom ñoo ko dàq waaw ndax dañ koy wax te dee à chaque fois wax naañ wax nañ wax fulla ak dëgg rek te fulla jëg dëgg ji mooy lii mooy dañu koo tooñ tooñaat ko toññar bi ko te tooñ boobu ñu ko tooñ askanu Sénégal ñu ngi wane ne fii tooñ du gàllaaj askanu Sénégal xaaratuñ suñu borom yàlla ñu ngi defal seen bopp ñu ngi fajal seen bopp te yàlla sunu borom day àtte bëccëgu ndara kàmm nag ci ku ñu tooñ billaahi dina àtte bëccëgu ndara kàmm waaye askan bi takk nañu seen tubéy ñii takk seen sër jigéen ñi ku ci nekk wane na doom a gën a bëgg Sénégal tax bëgg Sénégal moom mooy ku ñu xool ba xam ne dañu laa teg naka sudul noonu ñu daal di fexe la ñu la teg ñu daal di koy génne waaye itam ñu daal lay jàppale ci li nga xam ne nii moom mooy sa ngëneel itam sa nekkin bu mu fii li nga xam ne moom mooy cagnotte bi ñu ubbil kii di euh, capitaine Touré même pas minuit il est deux h mu mat sëkk sëkk sëkk vingt millions li ñu doon xaar. pour pourquoi pas ñu def ko 50 millions 60 millions pourquoi pas 100 millions parce que nag li may wax chaque jour benn lam du yëngu ay lamay yëngu te doole boobu force boobu askanu Sénégal dañoo war di jóg à chaque fois di ko wane dañoo war di jóg à chaque fois di ko wane dina tax waay waay waay euh, euh, mi yor bët yor nopp di ko ragal ci ay jëfam. te gis nga askan daa am lu laa am takku ba dëgër boo xam ne dañ la ko war di ragaloo bu ñu waxee nag waxuñu xeex waxuñu xuloo ndax jàmm la ñuy saxal ci sunum réew waaye yu mel nii dafay baax torop askan bi génn wane seen bopp dafay baax torop askan bi génn wane ne lii dootuñu bàyyi mu dem parce que tamit dafay bëgg a metti wax naa ko fi léegi président Macky Sall mii tey bi ko euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Ablaye Wade di dàq comme nii la woon rek jàppale bi nii la tasee woon keneen ak keneen mais ci njiit mii ci euh, gouvernement bi lañu gis ñu rajo finit nit rajawaat fi nit rajawaat fi ndaxte dafa ànd ak euh, koo xam ne nii rek dafa farul ak nguur wala sax dafa ànd ak askanam ñu daal di lay raje daal lay génne carrément ci fonction publique waaye itam yàqal la li nga xam ne du ma da sax yàq àdduna yàq àdduna amu ci parce que euh, capitaine Touré gën na wala sax gën na demin képp koo xam ne da nga ko rooxee actuellement gàcce ngaalaama moom waaye gàcce ngaalaama yéen patriotes yi gàcce ngaalaama yéen ñi nga xam ne yéen ay askanu Sénégal gi wan capitaine Touré ne ko ñàkkul dara ndax yéen a ngi taxaw pour jàppale ko ci côté bépp donc gàcce ngaalaama yéen bu mu yem fii bu mu yem fii képp ku ci nekk ci ci njàqare ak tiis na askan wi jóg ci xel ci xam-xam ci leneen ak leneen ci doole daal di lay taxawu ni ñu def eh, ci bërki démb ci kaawu ki nga xam ne nii moom mooy astu soxna du fi yem dañuy gën a dem dañuy gën a dem ndax dootuñu seetaan benn yoon li nga xam ne ni moom mooy injustice ñu daal di koy dund ci suñu réew waaye itam dootuñu seetaan benn yoon koo xam ne dañ lay néewal doole ñu daal di ciy taxaw parce que tamit ñoom nee nañu capitaine Touré capitaine Touré bu fekkee dañ laa sant dañ ko santoon liggéey boo xam ne nii xëy na dañ ne euh, nam ko defee yembul et pourquoi pas ñu teg la yeneen ci ay waaye dañ lay jël rajo la carrément dàq la jëlee la fa nga xam ne nii fa nañ la tegoon et pourtant wax nañu ko hôpital Amadou Sakhir Mbaye bi nga xam ne tey jii foofee la astu soxna daal di euh, faatoo dañoo dàq directeur bi dàq euh, dàq directeur bi en attendant ñenn ci personnel bi ña ñu teg loxo nee nañ mais kañu fa indiwaat ñu xamlewaat xamlewaat xamlewaat ni en 2017 ci hôpital boo xam ne moom moo ko jiite woon benn doomu Sénégal ci xale bu ndaw dafa tam ñàkkoon bakkanam ci ay conditions yoo xam ne nii tamit euh, kenn mënu koo lii kooku ci jamono jooju lañ ko dàqoon anamu tey ji moom la ñuy jox fee mu toog fa. a chaque fois ngay gis ne kumba am nday kumba amul nday day am ci li nga xam ne nii moom moo di ci mbir yi te mu doon loo xam ne nii dafa mën a ñàkk su ñu toogee rek di ko analyser mu nekk nag loo xam ne nii dafa mën a ñàkk te askanu Sénégal xaaruñu ko ci ñi nga xam ne nii moom moo di ci njiit yi te man à chaque fois li may wax rek nañuy artu nañuy artu nañuy artu nañuy artu moo gën àtte nañuy artu moo gën àtte te gis nga lii ngeen def askanu Sénégal artu ngeen def artu ngeen def wane ngeen ne seen doole kenn moomu ko wane ngeen ne seenum xel kenn moomu ko naam bu ñu tënkee seen seeni poche yéen a ngi génn ci seen dërëm ak seen ñaar dërëm boole dafay nekk lu daw yaram donc di leen wax jaajëf jaajëf jaajëf yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen a boole seen dërëm ak seen ñaar dërëm jox ki nga xam ne moom moo di euh, capitaine Touré te bu mu yem fii bu mu yem fii tant moom amul liggéey rek dañu koy euh, day yeelu ñu koy fay. ñu koy fay weer wu ne muy def ci njabootam parce que père de famille la te kuñ mu kuñ ko tegoon ci sa kaw rek amaana du la neex ba tax na tam dañ ci ñëw rek di ci ñëwaat di ci ñëwaat di ci ñëwaat ci kaw tam wax ne ah, ku saraxatul ndongo li na ko bàyyi ak yelwaanam ngir yàlla ku saraxatu rek ndongo li na ko bàyyi ak yelwaanam parce que tamit am na ci loo xam ne nii di ko teg sa eh, moroomu eh, doomu aadama toog nga mën a nekk nag koo xam ne nii da ngay teg loolu doomu aadama ba pare mën a dund sa dund nu mu nu mu gën a paisible nga dundee ko noonu daal di koy seetaat moom mu daal di euh, war a sax mën a sonn wala sax mu am soxla lu mu lu mu mënta faj ndaxte dafa jàngoon yor liggéeyam daal di ñëw teg leneen ak leneen loo xam ne ni tey jii euh, da koo da cee bëgg euh, dundal as njabootam yow nga xañ ko loolu donc nañuy seetaat tam sunu diggante ak sunu borom waaye tam ci kaw loolu damay ñëw poser une question question bi mooy juridiquement ci côté gendarmerie est-ce que dañu faa am texte walla loi boo xam ne dafay tegtal ni képp ku ñu dàq ci corps boobu waratoo exercer waratoo liggéey ci leneen moo xam ci privé walla ci leneen donc loolu tam jar na ñu taat ci euh, poser ay questions est-ce que ku ñu dàq ci corps bi nga xam ne nii moom mooy gendarmerie nationale loi wala texte dafay taxaw man ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllum yoon ñoom laa koy poser la question est-ce que euh, bu ñu la dàqee rek foofu yow waratoo exercer ci leneen waratoo liggéey ci leneen rawatina wàllum privé. question la bu am importance boo xam ne ni man depuis sànq ba léegi mi ngi ñëw ci sama xel di ñëwaat ko ñëwaat mooy man je me est-ce que du. Euh, moom la mu li tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu dàq ko fii ci IAM wala sax ñu dàqlu ko ci IAM dafa fekk ne koor bi nga xam ne fa la nekkoon euh, warat buñ la fa xasee ba dàq waratoo exercer ci dara ba tax na moom ci capitaine Touré bind na ci texte bi nga xam ne ni moom la def ci Facebook bi ngir leeral wala tam indi li nga xam ne ni moom moo di ay leeral ci dàq gi ñu ko dàq. ne sax waxul lépp ndax nee na euh, digganteem ak école bi ak ki nga xam ne moom moo ko jëloon da koy sàmm bu baax a baax waaye itam sàmm école bi tax na ñëwul ci lépp waaye itam dem na bay laaj bay wax ne day dem dëkkam ngir sàmmi ay nagam jéem cee wuti dara waaye itam dafay dem ngir bay loolu sax dem na ba ci euh, laaj ndax mbaa du dem ba foofu ñu téye taw bi te dem na sax ba tiit ma dama naan psychologiquement sax ñoom téye nañ ko jàpp nañ ko psychologiquement parce que dafa ñaaw kenn du ko rafetlu dafa nekk loo xam ne jaayug doole la jaayug doole la te loolu moo ci feeñ Euh, déjà euh, bravo les les patriotes bravo les sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo conscient euh, daal di jàppale kii di Seydina Omar Touré le capitaine Touré bi nga xam ne wane na ak njàmbaarteem ci askanu Sénégal waaye tam wane na ne gor rek la ci li nga xam ne ni moom lañ ko dénkoon ñu daal di ko ci jaay doole donc bravo à vous yàlla na leen sunu borom lafal cat te it na na demee nii rek à chaque fois nay demee nii dëgg dina ma see feeñ waaye itam dëgg dinañ xam fan la fan la féete bu ñu jógee ci sujet boobu nañu wax ci beneen sujet beneen sujet bi mooy daal di dikk ci procès bi nga xam ne nii ba tey moom moo ñeel Ousmane Sonko ak Adji Sarr ku ne xam ne ni tey ji fàttali naa ko sànq bi may tàmbali kii di Adji Sarr ak ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye ñu nga doon def seenu face à face maanaam seenu janoo gu njëkk ginnaaw Euh, bi euh, procès bi euh, ginnaaw bi nga xamee ni dossier bi mi ngi ci loxoy yoon ginnaaw bi Adji Sarr demee porter plainte bii di seen face à bu njëkk ñoom ñu war a toog ak juge bi waaye itam daal di toog ak ki nga xam ne nii ñoom ñoo di seeni ay attekaay seeni ay ñi leen di layool ñi leen di layool ku ci nekk indaale na daal sa sa sa ki nga xam ne nii moom moo lay layool di sab avocat mais dañuy njëkkee ci li nga xam ne nii moom moo tukkee ni ki tey ci suba ci dugg si bi nga xam ne nii la victime comme ni mu doom comme ni ñu koy woowee ki nga xam ne nee nañu victime la nee nañu victime la di Adji Sarr ak dugg si bi nga xam ne tey dugg si na ko ñëw na ko ci euh, fi nga xam ne ni moom moo di euh, ca euh, tribunal bu Ndakaaru ak dugg si bu bu spectaculaire la ñu ko mën a tuddee boobee mu dugg si waaye itam di rek dugg si boo xam ne ku ne gis na ko dañuy njëkk a taxaw ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon yore ay pancarte moo xam góor moo xam jigéen parce que tam dañuy sukkandiku euh, ci li nga xam ne moom moo di ci vidéo yi ñu gis mu nekkoon euh, di euh, nekk fi nga xam ne ni moom moo di ci réseaux sociaux yi di ay vidéo yoo xam ne mi ngi doon circuler fépp foo doon xool ci biir réseaux yi ci kaw am ñu naan ñoom dañu leen jëloon fay leen li nga xam ne ni moom moo di junni ngir ñu dem daal di yuuxul Adji saar ngir mu am ndam ci li nga xam ne nii euh, moom moo di euh, li nga xam ne euh, ci la nekkoon di dem di janoo ak ki nga xam ne nii moom moo di kii di ex patronam di Ndeye Khady lu ni mel ba mu amee gis nañu video yi na muy surculer bu baax a baax ci réseaux sociaux yi mu nekk nag loo xam ne nii su fekkente ne dëgg la lu ñaaw la lu ñaaw a ngi noonu su fekkente ne dëgg la que dañ leen a fayoon Euh, junni junni ngir ñu dem daal di mën a yooxul Adji Sarr waaye itam gën koo indil seen soutien ana ñan ñoo ànd ak Adji Sarr ñooñu lu leen tere woon a jóg ñoom dem ca tribunal ba laataa ñuy fay ay junni junneeki euh, ñaari junni lu leen tere woon a sol seenu mbubb dal di dem jàppale parce que tam ku ne am na euh, sañ-sañu jàppale kala saf kala neex mais bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñoo wax ne dañ leen a fay junni junni loolu du lu rafet du lu rafet te tamit daal nekkul loo xam ne nii dañu koy rafetlu ci askanu euh, Sénégal euh, beneen bi mooy gis nañu pancarte yi ba ñu paree jal ba mu nekk euh, ca alentour fi nga xam ne nii moom moo di ci biir alentour fi nga xam ne moom moo di ci biir fiñ ko fiñ ko doon defee di tribunal régional gis nañu nañu ko fa jalee après vidéo yi na muy nañu ko partagé waat ñun egguñu fa waaye vidéo ñu fekk fi ñu toog mu nekk nag loo xam ne ni gisoon nañ nit ñi di ko partagé di wax naan Euh, ñi nga xam ne ñoom la ñu fayoon junni junni ñoom ñoo jël yooyu la pancarte di sànniwaat fi nga xam ne nii moom moo di ca mbedd ma ngir wane ne fay nañ leen julle junni rek laata deux heures ñoom jóge nañ ci ci place ya ba daw nañu ku ci nekk ñibbi maanaam junni ba ñu leen fayoon wàccoo nañu ak moom ndax dix heures lañ fa toogoon ba laata deux heures ku ci nekk daw ñibbi fa nga nekkoon euh, loolee ba tey jii ñooñu gis naa ñu leen di wax ay yeneen baat ak yeneen baat mais bu leen fàtte nii xëy na li ñu def waruñu ko woon a def ay euh, patriote lañ doomu Sénégal lañ yoo xam ne nii dañu leen di xiifal ba ñu xiif dañu leen di maral ba ñu mar ñu yëkkatiwaat ci seenu xaalis compati jox leen donc ñooñu amul fenn ñu leen di xas wala di leen classé ak yéen ku ci nekk yaa xam la nekk ci sa xol waaye itam yaa xam li nekk ci sa poche boo amul liggéey wala mënoo xëy dem fenn ah sañ nga kat kenn génne mille mille mille francs daal la koy jox euh, nga dem nga dem nga dem euh, yuux wala nga tàccu comme ni ñu koy defee ci ak waay politique yi rek noonee lay demee bu fekkente ne noonu la demee ñun nag waxuñu ne noonu la demee parce que ay vidéo lañu gis ay nit yu demoon yor ay t-shirt ay pancarte ñoom ñoo def yooyu les témoignages ñoo tax ñun tam ñu am sañ-sañu daal di ciy wax duut ci baaraam mm, te xam ne du lu ñu lu beneen bi mooy euh, wax naa léegi dugg si bu spectaculaire bi nga xam ne moom Adji Sarr def na ko en tant que koo xam ne nee na dañu ko sàkku en tant koo xam ne nii euh, néew ñu mu làqatu néew ñu mu nëbbatu na dem ci procès ba ak na mu ko bëggee waaye itam da doon yellu lool Adji Sarr nëbbatu da doon yellu lool Adji saar bañ a wane fës gi mu fës tey waaye itam daal di bañ a wane li nga xam ne nii moom moo di kontante mbégte euh, comme ni ma koy waxee rek yàgg nañ fee euh, siif wala sax ñu sàkku fi euh, suñu ay rakk suñu ay doom suñu ay yaay ak ñeneen ak ñeneen ñu leen ciy jéggalu bu baax a baax a baax di leen masuwu encore une fois bu baax a baax a baax waaye itam bu mu amati ci askanu Sénégal bu ñu ko tegati benn jigéen moom Adji Sarr tey jii dafa dafa jubilé jubilé reetaan kaf ma yaakaar ne man ci sama xalaat bopp euh, danga ne dañu laa sàkku euh, yaakaar naa boo dee ñëw war ngaa mën a war a mën a war a mën a wane mer wala leneen ak leneen wala découragé ca nanga ko mënee ndaxte tam euh, xëy na buñ la ko tegee du lu baax du lu kenn rafetlu bu fekkente ne li nga wax dafa am du lu kenn rafetlu te bëggatuñu mu dal kenn ci suñu ay doomu réew rawatina jigéen ba tax na loolu lu lu ñu jaroon ñu ci eh, taxaw di seetlu la ci kaw Adji Sarr ak na mu dugg see lu mënoon a ñàkk la mais tamit eh, forcé gi ñuy forcé eh, Adji Sarr à chaque fois pour mu wane ne elle est joyeuse pour mu wane ne dafa pare pour dem ci procès nekk nag loo xam ne nii Adji Sarr boo ko dee xool moom ci boppam dafay nekk loo xam ne nii day mel ni dañ ko ko forcé dafay mel ni koo xam ne dañu ko puus pour ne ko kafar reetaanal waaye tam bul becc benn yoon rongoñ ci xale bu tuuti ndax ñi àndoon ak moom tey jii génn dégg naa koo ci xam ne nee na dafa leeral carrément ne aji vingt ans rek la am kon kooku xale la demagul fenn donc dafa yellul aji saar di dugg si ak foofu ak li mu wax ne moom lañ ko teg di wane ak mbégte wala sax muy wane loo xam ne nii xëy na njàmbaarte la ca la muy dund actuellement nee na ca la mu wax la muy dund mu ci wane ak njàmbaarte ak yeneen di ci jubilé donc dafa doon yell rek moom mi nga xam ne tey jii ñoo ko ñoo ko tënk ngir digal ko moo wane ne dafa joyeuse ñu bàyyi woon ko bàyyi Adji Sarr ak xelam mu dem ak xelam bàyyi ko tam bañ koo forcer yenn yi ndaxte tamit forcer bi day bëgg a ëpp Euh, ni muy wanee que dafa nekk que moom amul dara lu ko metteeg yooyu dafay bëgg ëpp ci dossier bi nga xam ne nee na moo ko lëkkale ak ki nga xam ne ni moom la ko sékkal mu nekk nag loo xam ne nii ñun en tant que jigéen man sama sama xel laay waxee sama laay waxee tant que jigéen loo xam ne nii rafetluwuma ko mënoon naa nëbbatu ndaxte ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye ba tey ñu ñëw ci moom mi nga xam ne moom la ñu wax ne moom moo nekkoon ex patronam ba muy ñëw tey jii yaakaar naa kenn gisu ko mu dugg si wala mu génn wala mu yuux wala mu ree wala mu def dara et pourtant xëy na moom sax la gënoon a jekk ci moom la gënoon a yell te pourtant wanewul boppam bee passé ba ñu ko wooloo entendre ko moom kese ak jëkkëram dafa génn ba mu génnee kenn dégg ko mu pipe moom am na droit nag yor téléphone am daal di wane li nga xam ne moom moo di kanamam ak na mu mel ndaxte tamit du xañuñu ko boobu droit am xajuñu ko bu fekkente ne am na yenn ci ay droit yu ñu ko xañ tam xajuñu ko boobu donc day baax moom tamit mu am noo xam ne noonee la wane waaye damay wax ne rek soo pësee ñaari tolloolee ñaari danga naan euh, Adji Sarr fii mu wane daal baaxul fii mu wane baaxul ni ñu ko koy forcer pour mu defee noonu baaxul Adji Sarr dem na ba bi muy wax naan euh, dafa bëgg procès dafa sax juum ca la muy wax nga xam ne lii force dëgg ngi ci ci sunu ay analyse la ñuy waxee waaye itam bëgg am ñoo xam ne nii dina leen impressionné rawatina askanu Sénégal bokk na ci mais kenn xaaruloon loolu ci moom mënul naa ñëw rek ñëw gu gën a yell ñëw gu gën a sell dugg euh, wax la muy wax def la muy def après su génnaatee ñibbi beneen bi mooy ñu tee ñu taxaw ci ki nga xam ne moom moo di ci euh, kii di avocat xam nga gisoo leen ba tey jii avocat wu Ndeye Khady Ndiaye ñu bari ci askanu Sénégal xamuñu sax kan mooy avocat wu Ndeye Khady mu di Balde ñu koy saluer de passage ba tey jii tey gisoo leen ko fenn de et pourtant mi ngi woon ca tribunal ba ñëwoon na daal di taxaw si ki nga xam ne moom moo di clientam mais gis nañu maître El Hadj Diouf mu ànd ak ki nga xam ne nii moom moo di ab client am moom tam ñëw défule ñëw wax fa ñi nga xam ne ñoom ñooy ñenn ñu taxawoon pour soutenir Ndeye Khady Ndiaye mu jàllanteek ñoom ay kàddu waaye tam waxanteeg ñoom ay wax yu ñagas ba sax ay saaga jub ci mu nekk tam loo xam ne nii xëy na moom tolluwaayam la. comme ni ma koy waxee xëy na aussi gis-gisam la xëy na aussi li nga xam ne nii loolee mooy dayo bi mu jox boobu le dossier ndax kenn du nekk guléet moom euh, El Hadj Diouf moom maître El Hadji Diouf kenn du ne guléet mu def lu ni mel ndax am na fi ay procès procès procès donte ne bariwul yoo xam ne nii euh, teewe woon na ko ñu gis ci mu teewee ci noonu mu indi li nga xam ne nii moom moo di wàllum théâtre wàllum li nga xam ne moom moo di def yëf yoo xam ne nii xëy na ku ci ku ko gis euh, doo def rek lu dul euh, ñàkk rafet rafetlu ci ni ma ko xalaatee xëy na nag am na ñu mu neex waaye itam dafa doon gën a yell moom maître El Hadji Diouf mu am retenu ci li nga xam ne nii moom mooy jëfinam ci ni ki tey jii nag mu amoon retenu waaye itam dossier bi ak li muy laaj euh, ci li nga xam ne moom moo di ci gëdd moom moo di ci lii ndax daan ko fi wax à chaque fois ci sama ay euh, génn yu ma xam ne ma ko doon def moo xam may liggéey feneen di wax ne gis nga dossier boo bëggee mu sérieux danga ciy def sérieux am na loo xam ne amul sax dossier mais leneen lu mënti doon boo bëggee mu sérieux dañ nga ciy boolee tuuti sérieux pour nit ñi mën a xam ne lii ngay défendre wala lii nga xam ne nii moom nga jàkkaar loolu war a janoo ak moom nit ñi xool ko ci lu sérieux mais boo ci boolee ñàkk sérieux rek day am foo xam ne nii àdduna bi foofu lañ koy gisee waaye tam foofu lañ koy foofu lañ koy xoolee ba tax na loolee bokk na ci loo xam ne nii lu ñu def remarque la te dañ ne woon dañ ciy toog wax bu fekkonte ne Ndeye Khady Ndiaye dafa ñëw def lenn loo xam ne nii wala ñu gis ko mu def lenn loo xam ne nii lu safaanoo la ak lañ doon xaar ci moom billaahi amuñu rusukaayu toog fii daal di ciy becc suñu ay analyse maanaam xalaat ci li nga xam ne nii noonee lañu la ñu xalaatoon ne noonee la war a demee Adji saar moo ñëw fekk na fa ay ñi nga xam ne ñoom ñooy ay partisan am ñëw na ci ñoom defule na reetaan na kaf na ci koo xam ne nee nga dañu laa nee nga dañu laa violé dañu laa sàkku ba nga nga nga toogoon atum lëm làqatu benn place ndax ki nga ko séqal tamit du noonu nga làqatu benn place ba tey jii nga génnoon ngir fa nga ne lii bañ la ko defee kako moom ñu war laa defal janoo ak moom nga war a ñëw ak dëgg ak fulla donc xaaroon nañu leneen ci moom bu fekkente ne procès la bëgg yàlla na ko ko suñu borom may moom ak ki nga xam ne ni moom moo moom la ko bokkal ñoom ñaar ñëpp ñu koy sàkku yàlla na ko suñu borom def waaye itam damay wax ne rek dafa doon yell moom Adji Sarr en tant que xale en tant que ndaw jigéen nga ñëwoon ak beneen façon bu dul bi nga ñëwee tey jii ci fi nga xam ne ni moom moo di ci tribunal régional. waaye itam euh, avocat am di maître El Hadj waroon a ñëwee nu ne ndaxte dossier bi waroon na cee wane sérieux wane waroon na cee wane leneen ak leneen lu dul euh, problème mu théâtre wane carrément ne day théâtre parce que tamit. lu nekk ci loxo yoon rek yaakaar naa ni lu war a sérieux la te li ñuy xaar ñun ñëpp askanu Sénégal di ko xaar atum lëmm mais tamit dañuy taxaw ci leneen bala ñuy jeexal mu di est-ce que bu ñu gisee ñoom ak ni ñu defee Adji Sarr ak ki nga xam ne moom moo di euh, avocat wam ni ñu defee tey jii duñu gën a suñu xol yi gën a metti euh, ci ñi nga xam ne ni moom mooy suñu fukki doom ak ñeent yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkkoon seen bakkan ci dossier bi en mois de mars parce que tamit ñooñu kenn du leen fàtte ndax aji bu fekkee nee na dañ koo sàkku it mu ngi yor ba kanam di dund yaakaar naa ne am na lu mu lu mu war a rattrapé ci àddunaam mais ñee dem nañu tëdd nelaw dem nañu ci suñu borom yàlla bàyyi fi naqar bàyyi fi tiis bàyyi fi loo xam ne nii ak réccu rek la donc ñooñu yaakaar naa ne képp ku doon def wala képp ku bëgg a def war ngaa sóor ñooñu ndax bakkan dafa foor war nga leen a sóor ci côté yépp ndax bakkan dafa foor donc lépp lu waaye doon def na nga leen ci sooraale na nga leen xalaat ci dossier bii ba tax na man fi may xalaatee mooy est-ce que ñoom bi ñuy ñëw sóor nañu askan bi nga xam ne nii di sunu fukki doom ak ñeent yooyu nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci biir dossier te ñu waroon leen a sóor waroon a ñëw toroxlu tuub waaye itam ñëw ak beneen euh, façon boo xam ne nii dinañu xam ne kat ñii. am na loo xam ne ñu ngi koy sentir ba tey ci bile dossier ndax dañoo am sunu ay martyr sunu ay quatorze doom yoo xam ne nii ñoom ñoo ñàkk seen bakkan di ay doomu Sénégal amaana euh, kuñ ci bàyyi woon nga màgg ndax ñoom ñëpp ay ndaw lañ daanaka kuñ ci bàyyi woon nga màgg say li nga war a réaliser dina jariñ askanu Sénégal kon duñu jóg ci di leen ñaanal waaye itam di sàkk sunu boroom yàlla mu mu mu mu mu wanale leen ak Seydina Mohamed waaye itam atte leen ci yërmandeem incha allahu rabbi loolee daal la ñu waxoon nañ ñëw daal di leen koy baaxee ci sunu xalaat bu gàtt di jéggalu encore une fois di jéggalu bu baax a baax ci ni ñu koy yëkkatee ndax dañoo jàpp rek loolee mooy sunu euh, tolluwaay ci mbir mi waaye tam ni ñu ko sentiré rek noonee la ñu koy defee comme ni ma koy waxee à chaque fois nañu bàyyi di wax naan bul wax nañu ko bàyyi ñi koy wax man maa ngi leen koy ñaan nanu bàyyi di wax naan bul wax pourquoi pas ana lan lañu war a ragal ba du ñu war a mën a toog waxtaan ndax lii waxtaan rek la analyse la ñuy def suñu xalaat lañuy la ñuy génne ci li nga xam ne nii moom moo am donc daal di koy partager ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan mu néew mu bari donc lan moo war a tax ñuy wax à chaque naan bul wax bàyyil déedéet nguur gi sax ñoom ñoo waroon a njëkkee ci loolu mooy may àdduna bi may askanu Sénégal à chaque fois ñuy waxtaan ci mbiru Sénégal waaye itam ñuy déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ñooy wax ndax dëgg dëgg du du kenn rek moom moo ko téye li li war a am du kenn rek moom moo ko téye te xam-xam du kenn rek moom moo ko téye donc soo amee ouverture di déglu ñëpp dina amaana di nga am loo jëlee ci kii loo jëlee ci kii loo xam ne ni boo ko dajalee askan bi dinañ ci gis seen bopp donc man fii laa koy daggee ndax mi ngi guddi te xam naa ne teeleen yellul ku ci nekk am nga yitte boo xam ne nii moom nga war a dox yi mais loolu lañ ñëwoon wax ne Euh, dafay combattre ses propres citoyens euh, fan la démocratie nekk fan la liberté nekk dans tout ça il est temps ñu daal di màgg il y plus de colonisation ndax euh, nag colonisation amagul amatul te itam dañu nekk entre compatriotes te dëkk bi itam ñun ñëpp ñoo ko bokk daal di moom bu ñu gouverner un pays libre on combat pas ses citoyens dañu wax di assister di leen protéger quelle que soit seen appartenance politique et religieuse je pense que nag damay may dem sama dëkk ga ma jóge woon ci diwaanu Kolda jënd fa ay nag daal di nag bay foofu nag bu fekkee daanaka nag du ñu ñëwaat di ma confisquer ay nag suuf ak i nag bett animaux yi nga xamante ni nag moom laa dam wala boog ñuy empêcher sax le ciel mu daal di pleuvoir ak lu ci mënti doon yàlla ji moom ñëpp la fi daal di nekkal nekkalu fi kenn moo tax nag ki nga xamante moom mooy capitaine Oumar Touré foofee daal lii la ñu daal di xëyee niki tey ci ay xibaar ginnaaw démb euh, bi ñu ko daal di nag euh, euh, jëlaatee foofee ci IAM waaye nag mbir yi na mu daal di defee rebondissement ci moom mooy ab collecte lañ daal di lancé daanaka dañ ko wax rek sànq quinze minutes képp la def boobu le collecte ñu def ko ci plateforme bi di Kopar Express tax sax en quinze minutes ñu door a daal di nag lu toll nag ci un million trois cent mille francs CFA te seen objectif ñoom euh, waa Pastef mooy daal di atteindre euh, somme bu euh, toll nag ci vingt millions de francs CFA nee nañu vingt millions yooyu nañ koy séddale pour capitaine Touré mooy nag weer bu nekk ñu jox ko ci ab salaire bu toll ci un million de francs CFA loolee itam daal di jëm atum deux mille vingt quatre gi ñu jëm vingt mois des ci deux mille vingt quatre buñ ci sooboo nag ne ngir ñu daal di cay nag àgg un million weer bu nekk lañ koy jox comme salaire lépp ngir daal di koy nag soutenir collecte ba nag quinze mille kese la daal di nag def ñu daal di récolter un million trois cent mille ñi ci commencé nag euh, di euh, daal di euh, koy songu cinq cent mille di dàqante trois mille deux mille cent mille francs un million ba mbir ya nag daal di def benn tolli ñuy xoolande ci kanam fii ak ci kanam nag naka la daa collecte boobu naka daal di évoluer pour capitaine Seydina Omar Touré mi nga xamante ni nag ñu bëri jàpp nañ ci internet yi ne injustice kese moo ko daal di nag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 ci euh, recrutement bu ex capitaine Touré bile nga xamante ne Moustapha Guirassy daf ko daal di def recrutement bu capitaine Seydina Omar Touré euh, par l'IAM nekk benn outrage à la République et la gendarmerie nationale déclaration bi ancien président groupe parlementaire bu majorité présidentielle bi moo ko daal di wax moom Moustapha Diakhaté ne nag dafa contre mbir mile ndax nag du acte boo xamante ne ay responsable war nañ ko def rawatina bile institut euh, de formation bi nga xamante xamante ni nag bu mag la itam bu euh, nekk boo xamante ni bu crédible la euh, la mu ko daal di nag euh, expliquer na mu justifier nag moom mi xalaatam mooy ñu daal di koy nekk ne nag ko capitaine Seydina Omar Touré dañu ko radier des cadres du prestigieux corps de la gendarmerie nationale pour faute lourde boo xam ne def na ko contre honneur ak nag probité ak yenn ci ay devoirs généraux bu militaire war daal di am mu daal di koy commettre dans l'exercice de ses fonctions versé itam ci réserve yi comme soldat désormais euh, li nga xam ne mooy désormais ex capitaine Touré euh, bi nga xam ne léegi ab soldat képp la euh, mënut a dispenser ay enseignement aux enfants de la république moom mi daal di wax ne moom Moustapha Diakhaté ne nag ci ab république benn école sérieuse warul jël benn traître à la gendarmerie di ko jox nag ay possibilité exercer un noble métier d'enseignant mu rax si doolin ne ki nga xamante ni mooy Seydina Omar Touré niñ ko daal di nag euh, recruter en tant que un radier ñu recruter ko IAAF di commettre benn faute morale ci nag euh, ab euh, république boo xamante ni nag daanaka dañ ne bu sérieuse la ba noppi itam nekk garant de notre sécurité sécurité possibilité exercer noble métier enseignant moom Moustapha Diakhaté di lancer lu nu mel di ay pic daal di koy nag jëmle ci autorité étatique yi waaye nag autorité yi nga xamante ni ñoo daal di seq école bi di IAM ndax la mu ne nee na nag euh, lii concerne ministère des forces armées ak enseignement supérieur dañu war a saisir IAM euh, daal di nag euh, nu mu gën a gaawee ñu annuler contrat bi nga xam ne mooy lié le soldat Seydina Omar Touré ak nag école boobu leen ndax lii déshonneur la boo xamante ni nag daf koy daal di nag indil su suñu wàllum république ndax moom mi faute lourde moo ko tax nag ñu daal di koy rajee ndax. ak ñi pepe kale reefaan